sëñ bi nuyu nañu. ñu ngi lay fay soxna si. waaw gis nañ ne match démb bu Sénégal bi gis nañ ne Aliou Cissé chaque match day ki nga xamante ne moo di Moussa Konaté te démb remplaçant yi Mbaye Diagne lañ ci gënoon a xaar looloo gisee dama ci sa xalaat. waaw ah, man dama jàpp ni soit Aliou ñun xamuñu lan la soit dafa war a nekk euh, complexe entre joueurs yi wala complexe xam ne ñoo dàq dugal ñu convoqué leen équipe nationale convoqué wuñu leen pour ñuy toog banc Aliou Cissé classement da ko war a teg logiquement joueurs yi war a fubal ñoo war a fubal képp ku équipe nationale ñun dañoo jàpp ne képp ku fubal da nga war a mérito sa place da nga koy fayat sa club fayat ko fépp nga mën a jouer mais mënuñu jàpp jou équipe joueur boo xamante ne championnat amagoo amoo dix buts progressé woo même soo progressé équipe nationale amoo benn apport offensif bu ñu indi loolu apport défensif sax duñ ko xaar si yow kon Aliou Cissé ñun suñu suñu dugalee Pa Moussa Konaté kon leneen day day mel ni leneen la wala xamuñu quoi wax.

ah man bok d'après ni ma ko constaté dafa melni dafa am ay deux jours de préférence wa ah, si sama sama gis-gis la wax waaw ku si nekk am nga sa gis-gis mais tolluñu ci compétition yi fo xamné duñu jël ay jours de préférence dañoo wara a jël l'homme qu'il faut à la place qu'il faut Mbaye Diagne c'est un meilleur buteur hein sénégalais l'international mënu ma am ko melni ni Mbaye Diagne deux matchs deuxième match bi nga ko dugal 15 minutes de la fin mu def match am troisième match bi nga war ko dugal mu am opportunité marqué des buts te mayagoo ko chance boobu man dama jàpp ne maanaam yenn même soo xoolee na ngay gis soo lambee daj. coach bu nekk ak système xam nga boo xoolee peut-être système mu Aliou Cissé bu profil Moussa konaate la am xam nga boo xoolee équipe bi 22 joueurs yi mu indi yëpp xam nga 23 profil boobu xëy na Moussa Konaté moo ko mën a moo ko mën a jouer. xëy na sax lu tax départ loowu ko xëy na bu ko déparé sénégalais maam ko looloo tax mu koy dugal deuxième mi en complicité entre joueur et entraîneur ñu ngi ko yàgg na ko yàgg na fi di am boo xoolee Barça Guardiola ak Seydou Keita mu nekk Mali xam nga da daan dugal chaque instant ba daan wax naan kii doomu doomu Guardiola la doomu Guardiola la waaw euh, loolu daal laa si gis xëy na système bi peut-être moom moo ko moom moo koy pousse des fois muy def muy dugal Moussa Konaté daal. Aliou Cissé gis nañ ni que chaque match day dugal ki nga xamante ne moo di Moussa Konaté te démb remplaçant yi ne Mbaye Diagne moo waroon gën a loo ci xalaat. mais ça c'est pas normal ce qu'il la fait là pourquoi elle amène Sadio kii Moussa Konaté c'est pas normal Aliou Cissé est ce fils de nos gueules elle fait ce qu'elle Pourquoi Pourquoi elle amène ce cette là? elle le refoutit. Première occasion, elle rate nos ballons. Pourquoi Mais toi, elle ne connaît rien. Mhm, elle ne connaît rien. Moi, ce que je dis à Aliou c'est là, Aliou on donne une équipe, elle nous garde. Elle prend nos responsabilités, elle fait nos formations tactiques, on gagne. En tout cas, ce que je regarde là, dans ce pays-là, dans cette équipe-là, ils ne nous rien faire.